tuuri day saf de salaamaaleykum mbokk Equivox TV ñu ngi leen di di leen jaajëfal ba tey 72 heures yi day continuer comme ni ma leen ko waxee woon démb Wally Seck la rek xale bi mooy yëngal nit ñi sonal nit ñi sonal gambien ni sama gambien yi tey dañoo ñëw def fëlaale sañse non man dafa mel ay arbre dana lu ne laay gis soxna si naa def xoolal amul ruus amul ruus dañoo jógee Sénégal ñëw Gambie seet si leen. jaamara kay. yaa ngi si jaam. ngi si jaam waaw. tey lu la indi tey ci jour bi. ah Waly Seck ah. ma ne ko xanaa Waly. Waly tax na la woo leen. waaw waaw. 6 heures ba léegi ngeen toog di xaar. sa la sa sœur gis naa ko Gambie tey soxna si noo tudd. man Ramatoulaye. Ramatoulaye noo def. jaama rek. wax nañu da ngaa ndóog big mama nga ko di ngay seetaan mœurs. déedéet. <laughs> non yaa ngi Mama benn ngeen mais yaa ko dàq quand même. ko dàq waaw. ok ah? maa ko gën a rafet. ah kon jeex na. mais tey lu la ci bés bi. bés bi xanaa bëgg a ñëw tombé waale gi rek. ñëw ambiance rek felfelaale def ba mu baax. mais bëgg kaa leen dar ma di wër <laughs> ah waaye Gambien yi maa leen bëgg xoolal li ci sañ si El Hadj jëlee bi rouge noir la def de te 14 février ñëwagul waa jombiwu ma soxna si noo tudd. man Mariette. Mariette comment. Ngom. Euh, mariée ou ah, leerul de. <laughs> dama am bu may maye góor la Sénégal day takk jabar yóbbu ko Sénégal Gàmbi mm. lay takkee waaw. ah baax <laughs> nga wala bëggoo. déedéet man pareegu ma. <laughs> pareegoo may waxee lan. man nag jigéenu jigéenu Gàmbi kenn bëggu ci sëy lii baa jàmm lii baa jàmm eh sama copine ñëwal. copine yow. Gambie ni laa bëgg a wutal jëkkër bala maa ñibbi Sénégal. man am naa ah, am nga. waaw ah, lu sa rakk bi moom bëggul. ah xale la mu ngi jàng. sama caméraman bi laa ko bëggoon may. ah acca si yow la dara te Gambien la bëgg. ah boo paree eh, ñii dañuy reer de jëlal ma ñuy reer ñu ngi mel ñu nekk université jëlal ma leen dañuy reer <laughs> waa na def borom costume nuyu naa la. bu réew borom nuyu naa la. ci loo nekk. maa ngi am tey ci waali bi nga ñëwoon tey. waaw waaw ci waali yow daa mel da ngaa namoon fecc waali de. ah man non ndax dama day fecce nag waaye sama waay laa indi pour mu bëggee waali. yow lu tax mënoo fecc ñëw waali te mënoo fecc. non. <laughs> borom costume ñëwal. mais <laughs> da ngeen a jantal kaay leen amoo leen gel dama leen may gel <laughs> non amoo leen gel dama leen may gel doo taxaw taxaw dama leen may gel waaw. waaw gars yi dañ may daw rek. sëñ bi noo tudd. man maa ngi tudd Ousmane. Ousmane foo dëkk. maa ngi dëkk London Kona. ah foofu mooy fan man xam nga miinu ma Gambie. ah mooy la noonu ci bagaaras. ah tey loo lay indi ci bis tey. ah tey kay bugal bégal waali rek. tey eh, waali rek a lay indi. allah yow tamit. est-ce que mën nga fecc man la. laa ilaaha illallaah dem ba jeex. yow ma pay ada danse ma xool. non bu nekkee ne su ma la wane. déedéet wan wan ma ma xool. <laughs> non waale su ma la ko wane moom. Ah. man tey moom bagage na door rek ma wan la ne waari maa moom ba zéro. ah bon yow xamee naa la sa veste bu giri bu waale commencé maa ngi lay wëraat waaw ok waaw ba tey damay doxantu. soxna si naa def eh xoolal kii yow daa kii eh kaa ma wane sa yow yow sa yaay gisu ba ngay yéen lay la eh yow xoolal kii lu mu sol eh xoolal kii kii yaayam gis ko ba muy génn lay la soxna si noo tudd si tur bi naka la. man awa. aw noo def mais aw sa robe dafa rafet nag sérieusement parler yaa ngi sañ sa jëlal ma awa. mais Awa tey lu leen di ci bis bi. Ah, bés bi xanaa ne Wally suma fams la. te uh-huh. ko yaaga like daal man ak moo tax mën a tey daal xaaral ma ñëw si Wally daal. waaye waa Gam Gambien ni lu la ngeen bëri tiitar dama ko yaaga like quoi man dégguma li ngay wax. <laughs> kon dama ko yaaga bëgg daal. dama ko yaaga dama ko yaaga waa léegi tey Wally Seck ñëw uh, Gambia ñëw sargal leen. Uh-huh. doomu Gambie lan ngeen di wax Wally. Ah, Wally daal dañ kontaan ko gërëm di ko sant rek xanaa happiness. waaw kon merci bonne fin de soirée. layla xoolal kii lu mu sol yow sa yaay gisu ba ngay génn ah yow eh kay yow eh sa yaay gisu <laughs> waa nii laay def ak ñoom samay xarit lañ samay siste lañu waa Gambia maa ngi leen di nuyu ah. mais lu ñuy daw Faramareen warul ragal Faramareen du ragal. ñun Sénégal Faramareen dañoo am fit na ngeen def mais yow sa baax na de yow big mama ngeen dural xam nga big mama. bu nekk mërs waaw waaw moom ngeen dural sërëm nga xanaa. ah dafa rafet ah. bu ah, de. tur bi naka la. Dieynaba Mbaye. célibataire wala marié. marié madame lay doon. ah ëpp na looy wax monsieur Touré. kontaan si moom rek. waaw ah, monsieur moo la bàyyi nga ñëw si maa du ko waale waxee noppal na ma. moo ñëw bàyyi la nga ñëw si Wally. moo bàyyi ma ñëw nii ambiance ak Wally def ba mu baax. kon defal ba mu tëb. soxna si noo def. maa ngi fii. yaa ngi ci jàmm. tur bi naka la. Nene Seck. Nene. Seck Seck waaw ana monsieur. aw ma monsieur. sama caméraman bi dafa bëgg jabar nopp nga ko. <laughs> waaw nopp naa eh, ko non non non non. ah nopp naa ko nopp nga ko. waaw nopp naa ko. léegi suba ñu ñaan si. loolu dara nga doon njëkk. ma doon njëkk ah lii deex na El Hadj Ba sa premier njëkk. <laughs> yaa ngi si jàmm yow loo dégg. olof. dégg nga olof ak soose soose moom dégg ma ko olof moom dégg naa ko <laughs> tey lu lay indi ci bisu waali bi a ah waali ñëw enjoy rek. da ngay enjoy ah. waaw pour happy. ah kay ñu ñëw happy rek fecce rek. mais yéen lu tax ngeen mën defante temps yi dimbali ngeen indi ay robe indi yéen da ngeen a soof quoi yéen. soofuñ de bay rek ñu def lii. Ah. waaw waaw. yéen da di dóore daal. ah kay mais yéen bu ma leeree ni da ngeen di dóore le 31 fekk leen ñu Sénégal. waaw baax na garaawut. nañ ñëw ñëw waaw. waaw kon baax na dinaa la xaar. waaw ba tey damay doxantu yow eh, sa ba ngay génn yow ah yow sa yaay gis la ba nga def sa xew yi ah. mais kay da ngaa rafet kay da ngaa rafet da kay bul daw yow xeesaloo ba yàqu ah macha allah sa teint bi rafet na loo tudd. il faut. il faut yow da nga bëri tiita rafet nga da nga bëri tiita yow maa la dàq. waaw gëm naa ah, bi. ah ana waale bi kay. waale rek. waaw looy wax waale. waale ah waale kay mënuñ koy fay ana di ko gërëm rek. di ko gërëm waaw. 31 ah. décembre di nga ñëw Sénégal. Eh, daw. yéen ñu ñëwal leen te doo leen ñëw. amul benn damay xuus bënn barrage bi barrage bi yes nice okay nice gis la ba ngay génn yow li ngay <laughs> yaa ngi si jàmm. noo tudd. Fatou Kam Gassama. yow loolu tur na léegi woo sama caméraman sama caméraman war ah, na koo kii nu mu kii dafa booree. waa li nga def yow ba tey nii lay demee. woo man gisuma fii xanaa Gambie amul góor moo tax célibataire yi bari. <laughs> Gambie amul góor. yéen loo leen dew seen make-up dafa rafet loo leen di daw yéen seen make-up dafa rafet meloo leen di golo taxaw leen ah bàyyi leen def waaw da ngeen def. yow loo tudd man maa ngi tudd Amina yow célibataire nga wala marié. di jaajëfal ñun Gambie bariwul góor daa mel. célibataire bari na fi tara. Khadija célibataire wala marié. célibataire. fexeel ba ni benn marié sauvé leen sax. célibataire demal. célibataire. non man du ma wax célibataire. marié ah yow kay dafa xëyoo dafa. kay dafa xëyoo. macha allah sa ngeen tey lu leen indi woon si waali bi. waaw waali bi moom dañ kontaan rek waali dañ koy bégee bu baax a baax te dañ koy namba kon su ñëwee war nañoo ñëw bégee ñu happiness rek waaw. mais yéen 31 décembre est-ce que di ngeen ñëw Sénégal ñu ñu ngi leen fekk si est-ce que di ngeen ñu fekk si. mais bien sûr dinañ ñëw incha allah rabbi waaw dinañ ñëw. kon baax na. ay eh, borom combinaison yow mën nga réeré. ah réeré yow sa bët tey ci guddi gi lay. mais nuyu naa la. ci King City yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm waaw ñu la indi bisu waale. xanaa kontaan rek ñu bëggee Faramaren chaque jour. yow Faramaren nga kon. pire pire. waaw yow est ce que mën nga fecc mbalax. man mën naa fecc mbalax. ah xaaral ah, ba waale commencé congé bi si ngay xam lépp dëgg la. ah bon waaw mais naka Gambie neex na man ba ma ñëwee Gambie gisul xam naa daal mën ngeen sañse mais xaw ma ruqi. ah xamoo ruqi. Gàmbi daal mu ngi nii Gàmbi daal mu ngi nii xale yi sant nañ xale yu baax yi ñu ngi fii boo duggee ruqi xam gaay moom mooy lu. góor Gàmbi Gàmbi amul góor. gannaaw naa def. gannaaw naa def. maa ngi nii rek sant yàlla. waaw yow laa taamu nga may joxe. yow ma taamu la nga may ma nga taamu. waaw lu tax taamu ma. Gàmbi daa amul góor kat ay jigéen rek. amul lan góor waaw. loo mi amul góor. dina nekk live ci seen TV moom laa bëggoon yow yow jëm ko interview. waaw ah. ah. loolu ci waali bi tey. Ah. xanaa bëgg yow paa waali yee nga de. la. paa waali yee xale faramaareen la waaw. faramaareen xale faramaareen. baa di nga ñëw baa di nga ñëw Sénégal 31 décembre. Ah, su ma ko mënee daal naa ñëw waaye yaakaaruma ko daal. <laughs> waaw kon baax na rafet na mais gannaaw naa ne gannaaw da ngeen dugal kàllu di wax nañ la ko da ngeen dugal kàllu di kàllu di ngeen dugal gannaaw taxawal. voilà gannaaw kàllu di ngeen dugal xam nga kàllu di. yow kii yow kàllu di kii day nuroog yow xoolal kii nu mu sañsee. jërëjëf jërëjëf nakam mais tey looy indi ci waali non ma ne bii mooy suma force time may ñëw nag you know dama ko yàgg a plan ma ne suma xarit yi so so why not waaw mais est-ce que mën nga fecc mbalax. ah naa try. an sa madame dama dee ruus nag moo nekk nii. an sa jabar moo nekk nii eh madame bien. But it, tu vois ton mari là, il est beau, eh, English. English. English, hmm? Hello, how are you? down the line. <laughs> Um, They look uh, we listen to him at home in Sweden. Very, very ok d'accord baa yan ngi koy surveiller xale yi jigéen dañ koy jël de ba mën nga tey ku ceebu jël <laughs> ah de <laughs> merci beaucoup grand ok ba tey damay xuusaat ah Gambie moo xewle damay doxantu xool xale yi ku ñaaw duma la jël ah yéen na ngeen a rafet dama leen di jël beneen def ñii fii. yaa ngi si jaam. si jaam yow lu la indi tey. bége Waly Seck. bége Waly Seck ah moo la indi. waaw yow baa mën nga fecc mbala. mën naa kay torop. mën nga waaw feccal benn paa ma xool. yow lii yow nañ def yow lay mel ni ku jógee Paris nii ah. góor yi yoruñu ko. waaye noo leen di daw mel ku ne ci mars. lan eh, ngeen di daw ah jigéenu Gambia daw yaatu daaw tabe mars kenn sànnu leen xeer loo leen di daw mention jigéenu Gambia mais sa noir bi rafet na de yow maa yow dañoo nduroo xeesaluñu waaw yaa ngi si jàmm waaw man si jàmm tey lu la indi ci soirée bi ah ñoo seetaan wàllu wala yow an sa jëkkër sama jëkkër waaw ba tey comme ni nga ah, <laughs> ah, bàyyi sa jëkkër ñëw est-ce que na tey la samedi de day génn de day rëcc. waaw ah ah yow di nga am ñaareel yow waaw rek ngay wax <laughs> yow sa jëkkër na takk ñaareel. waaw xoolal boo ko ndax ma gis góor Gambie sax Gambie wër naa fa son ma góor ay jigéen rek kenn sëyu ci. waaw ah. Bogos kii mooy Bogos Gambie yow mii yow jëlal madame yow yow madame jóge de waaye yow nee na yow madame doo am ñaareel yow. yow doo ci kaw suuf. yow nee ko doo takk ñaareel. Gara loo wax. mbokk. doo tag non Gara bul sere waaye yow bu tapet waaye. Gara bëgguma góor bu tapet. Gara loo signé wala loo signé yow. daf ma doy rek ah. monogami nga signé. mono entouré dara. Eh, monogami nga signé wala polygami nga signé. yow kii da laa napp. man benn bañal. benn la nga indi ko si bi sax. neex kër gi. mooy suma partenaire. ah waaw kon jeex na man bëgg naa lii man. waaye jigéenu Gambie dinañu waŋ. <laughs> so loolu la def rek mooy wiyaayooyi ma jigéenu Gambie dañoo wang gisuma fi benn taay fii yéen dundal leen dina jafe de la ilaha illallah Teke Fera daa ñëwaat waaye fës nga de yow sa yow ñeme nga couleur de soxla si kaay sa commune la loolu. mais yow sañ-sañ nga de yow zone rouge nga def yow nga fit de. xam nga man ñemewu ma nag. yow li nga sol kenn ñemewu ko fi sol. yaa ko wax de. ci loo nekk. ngi fayeen. noo tudd. man suuna. ah suuna laa suuna. ah tey lu lay indi tey ci bis bi. ñëw bëgg ambiance bëggal suma xool rek. yéen waa Gambie da ngeen bëgg waale yéen. ah dafa xew rek xale bu xew si jamono rek la ñu. léegi bu xewee da ngeen koy bàyyi. non du ko du ko bàyyi mooy suñu artiste mooy suñu euh, suñu lépp daal. ah loolu seen xol sedd na yow célibataire nga wala marié. non célibataire laa. waaye xanaa góor amu fi kenn du takk fii. dañoo xam parce que ñun dañoo jàng pare. da ngeen di jàng ah yal na la yàlla defal jàmm ci jàng. waaye yéen kenn dàqewu leen loo leen di daw. lan ngeen di daw. ah lan di daw rek. gara naa def. grand ye eh. grand ak sa sapo yow yow laa waxal grand eh. eh, ye ngi si jàmm soxna si ku ñawal. sama benn waay moom ma jëm wax. mais yow sa xar bi sori de. ah Waly rek laa ko tuddee. Waly nga ko tuddee. waaw yow bu la soxna jàppee. ak yow mii sa bopp. ah ak man mii. eh dama ciy def dara. Ah. yow dama lay solo beneen robe. waaw baax noo tudd. Aida. Aida fan nga dëkk. Neema. fii foofu man miinu ma Gàmbi de. Waly laa tukunda. ah ok man léegi ba ma bëggee miila gaam mi nu may def. boo ñëwee rek. fan laay def boo ñëwee may jël si. waaw la jël si. kon baax na naa la xaar bonne fin de soirée. ah Gara. Gara yow mu Gambie yaa ngi nii gërëyee. <laughs> Gara noo tudd. no please my. no please let English in English. yeah I prefer to speak English. what's your name. I'm Cham yeah. waaw ah, Thomas ay waay waay déggu ma anglais ku dégg wolof kenn dégg fa wolof yéen gàmm yéen de ah? Ah, dégg nga yow booy yow booy yàgg dem Dakar yow naan waaw booy yow yàgg ngaa dem Dakar ah yow fan Dakar nga déggu ma wolof garaaw bu ma yebwaay <laughs> garaaw yow fecckat waali yow bu mag nga xamee naa la xamee nga ma maa gis xale bu nice bu ndoog mal ñu lay kaa bëgg soxna si na nga def. jaama rek naka nga def. yaa ngi si jaam. waaw maa ngi si jaam. mais naka gaam bi. ah gaam dafa neex. ah yow kese nga toog nii ana sëñ bi ñëwoo leen ngeen ànd ci Wally Seck bi. Ah, ñu ngi si dañoo xaar rek dañoo xaaragum xam nga daala bu gudda bi tamit foog ñu noppale ko tuuti. waa gis nga mi yéen euh, dañoo seelu dem ba léegi bañ ñëwee euh, xale yi gaam bi dañu mën se man xeetu robe yu ma gis gën naa koo gis trop yéen lan mooy seen secret ah mun na comme noo ko waxee rek mun na sañse bugg a kolo yu baax dara du xumba def yëpp bam em xam nga sañse su xumbee tamit du nice ah Séné waa Sénégal luñ leen ko bàyyee de xam ngeen loolu dañuy defanteeg yéen sañse bam saf déedéet waaye xam nga ñun ñëpp benn lañ nag Sénégal ak Gambie yëpp benn lañ ñun ñëpp a mun sañse waa ñii dañ munee fii rek ñii munee fii leen <laughs> waaye ni nga naay seen i ba tey amoo jëkkër xanaa bëgg na boo sama caméraman de bii du parengu ma <laughs> noboo sama caméraman bi gisoo ko. waa dinaa ko seetaat bu baax. ah waaw kon baax na kon ñu daje ci kanam léegi.